am na lu fi léegi ci proposition yi nga xam ne moom la ñu waxoon pour au conseil des collectivités territoriales proposition bi nga xam ne moo gën a yomb te te te te sës fi mooy que ñu def confiance au président la république ñu la république wax ko ñetti yooyu ñu am ñetti ñu am mu mu ñu may jox nañ ko carte blanche mu tànnal ñu mais du tee nag du tee proposition bi ñu njëkkoon def mooy que collectivité locale yi il faut ñu réunir seen biir wut ku nekk wut fa ku nekk deux yoo xam ni que dañoo bëgg président cëral leen loolu bu ñu ko amee bu ñu amee deux ñu jël liste boobu aussi jox président ni ko amoo collectivité locale nekk am nga collectivité locale am nga leneen am nga ay ñoo ñooñu aussi bëgg nañu nga jëral leen pour bu ko defee gis gisul sa bopp ci au conseil bi au moins nga gis sa bopp ci yooyu di ñëw deuxièmement dañuy wax ni pour les jeunes li fi baara wax léegi c'est extrêmement important mooy que ñun décider nañu def leen seen dossier dem leen inscrire fonction publique parce que fonction publique moo gën a yomb ci président de la république bu ngeen fay inscrire ñun ñi amul liggéey ñun ñu ñu dem ñun ñi nga xam ne yàlla mel nañu ndombo tànk ñu daal di koy topp bu ñu ko toppee pour yéen ñëpp comme tous les responsables ngeen am ñi amul poste ñu am post fonction publique te société yi aussi ñi nekk fii euh, dans la dans le département de Tivaouane ñu song leen pour que ñoom rek ñoo ñu mën a dimbali ci jeunes yi ci seen responsabilité sociale d' entreprise ñu dimbali ci jeunes pour jël leen loolu dinañ ko dox dox ko nag bu organisation bi ñu teg fii tey mooy tax ñu mën ko dox ak jàmm ak salaam pour ñëpp am poste donc vraiment ñu wax ni que réunion bi commencé na ci jàmm terminé ci jàmm ñëpp d'accord nañu jox confiance président de la république moom bu tànnee nag ñi mu tànn ñu ci ñëpp jàpp pour voter ñooñu pour voter ñooñu parce que en fait ñëpp président la ñuy liggéeyal président la ñuy liggéeyal parce que candidature yi fi mu ne pour delluwaat ci base bi di ko tànn day métti trop dina métti ci mairie dina métti ci ñu koy tànn parce que bu ngeen ko tànnee conseil yi ngeen tànnul dañ leen di mere parce dañu bari dañu bari dëkk boo dem rek am na au moins quatre ou cinq candidatures loolu moo gën a yomb du fuite de responsabilité mais loolu moo gën a yomb te loolu moo gën a yomb ci président président dina xam ni sagal nañ ko xëccoowuñu ak moom dara dañ ne ko yow ñun dañu topp sa ginnaaw loo ñu jox ñu jël loo ñu jox ñu jël dañ topp sa ginnaaw dañu laa gëm si tu nous donnes quelque chose on prend mais vraiment imposé wuñ la dara ñu ngi continué topp sa liggéey topp topp topp topp ci yow topp ci li nga bëgg mooy que rek ñëpp. jox la doole bu nga xam ni di nga mën a développer Sénégal ni fi nga ko mëgg a teg sa PSE bi ni nga ko bëgg a pousse rapidement bu nga xam ne du am benn obstacle def naa loolu moo génn ci réunion bi te loolu moo gën a yomb ci ñëpp parce que maire bu ñu fi wax demal tànni da ngay am problème donc nañuy jébbal confiance président la république mu def lépp